ndax jep jëf juñu jef, ca señ bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja señ be ko raw gon ko rafet la mu jëf lolo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju rëy fa barab ah jërëjëf yeb batay ñi ngi ci liggéey xelkom bi rek fi ñu nek muy keur Cheikh Amar fi ci Touba ñu toga a xamni day kenn ci kër gi ñu koy wax baal ji cion xamna dana ci gëna ñew ak ki nga xamni moy Daabo ci kër gi nek fi ay ati at and ak Cheikh Amar ci li nga xamni moy liggey bi serigne ñi ngi lay nuyu Euh, yaaram maa ngi lay fay. ñu ngi lay jox sa wàccuwaay nekk nang ci liggéey xelkom bi te buñ nee xelkom ni Serigne Saliou bu nee Serigne Saliou ni Serigne Cheikh bu nee Serigne Cheikh ni Cheikh Amar mi nga xam ne mooy jëwriñ bi ren nag ñu ñëw nag ci liggéey xelkom bi ñu lay laaj nag nan nga ko gisee ren. Euh, ni ma ko gisee mooy la Serigne Touba waxan rek sëriñ Touba danoon li ma soxla ci mbay mënuma koo def waaye jamono ngi ñëw doom dina ma ko defal mooy xelkom gi xalifab Cheikh Al Khadim bu fi masa jaar sas wu mu sas taalibe yi bay nañu ko ci genn guddi sëriñ Saliou moo ñëw yëkkati xel koom taalib mu tëj ci taalibe yi Sénégal gépp fu mu murit ne boo ñëwee xel koom dinga liggéey ba ñaq jëriñu ca liggéey ba du jeex sëñ Saliou rekk a sas taalibe sas woo xam ni mënuñu ci dara muy xel koom jaaga. xel koom gi nag ren ñu. xam naa ne génnuñ ci woon waaye boo xoolee tey jii waa kër Cheikh Béthio Serigne Saliou Thioune moom Serigne Cheikh saaliw ñëw ànd ko ki nga xam ne tey mooy Cheikh Amar bi nga xam ne mooy jëwriñ wi mu mel na kon la Serigne tubaa waxoon ni ah, li ma des ci liggéey mooy ay tool sama doom dina ma ko defal kon liñ xaadati ujóoru wal masaali jooju ma doon wax tey dellu si waat na ndax Serigne saaliw la Serigne Touba ne woon mooy sama doom tey Serigne Cheikh taawam bu baax bi yal yàlla yàggal ko fi mu jël nag liggéey boobu jox ko Cheikh Amar gannaaw bi mu ko joxee diggante daaw ak ren yan yokkute ngeen xam ni gis nga ko ci liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Amar jiite. yokkute gi mooy sëñ bi xel koom ngor mu njëkk ma fi la ma fekk maa nga fa wan jël na nu mbëtt muy dund tek ci ko taal muy fuddu ba sedd guy nu lekk ko ndax booba nit ñi bari na ca ñam yi bariwul. waaye diirub ñu def Cheikh Amar jëwriñi xel koom ak fii mu ne boo demee ni ñuy tuure bernde yi ci Touba bisum màggal ni lañu koy tuure ca tooli xel koom yee yàpp wa du jeex ndawal ga euh, euh, boison ba du jeex kenn du fa naan ndoxum robinet Evian rek la ñuy naan ñiy jàpp sax Evian la ñuy jàppee loolu Cheikh Amar ko andi muy innovation ci xel koom ca yàlla boo koy jaamu ci doom aadama yi nga koy jaamu Cheikh soppi na xar kanamu xel koom ndax jëpp jëf ju ñu jëf ca bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja sëñ bi ko raw gën koo rafet la mu jëf looloo Amar jëf-jëf ju fa barab bu mag ba nekk fa Tuubaa